Euh, ñu terminer avec euh, l'enseignement euh, université gis nga fan yii yëpp les les les étudiants ñu ngi protester dañ bëgg campus bi tijjiwaat cours yi reprendre normalement en en en présentiel alors est-ce que après le traumatisme qu'on a vécu l'année dernière par même pas l'année dernière au mois de juin avec le saccage de la bibliothèque du du du du CESTI euh, et de et, et du campus euh, et du campus social. Euh, est-ce que l'État mu ngi ci dëggam tëj campus bi est-ce que c'est motivé par des par des questions politiques ou que l'État a réel a, réellement raison de fermer le, le, le, le campus et de bloquer les enseignements en, en Je pense à plusieurs points. maanaam xam nga d'abord le fait que ñu bett état bi ci campus bi loolu jaaduwut franchise universitaire tekkiwul ni état de non droit ñu la fait que ñu bett leen lakk affaire bi jaaduwut parce que jour boobu ambassade yeeg waa ASECNA ak waa Sonatel ak ñëpp a tëj jël seen matuwaay pour ñu bañ a am gàllankoor ñaar. xam nga ban année la ñu toll ñun ñu ngi 2023 de mais université am na ñoo xam ne ñu ngi ci 2021 <laughs> loolu dafa c'est c'est incroyable yoo xam ne ñoom ay étudiants yoo xam ne ñu ngi ci 2021 bon saccage yu université bi warul justifier saccage de l'enseignement cest à ñu pertaat beneen année ñu dem na a nekk 2024 fekk ñu am bac juillet vingt deux pratiquement ñoom jànguguñu te ñu orienté leen université de Dakar jànguguñu est-ce que loolu c'est justifiable quelque que soient mesures yi ñu war a mënoon jël pour protéger université war nañu am deux mois trois mois yoo xam ne waroon na mot pour ñu jël matuwaay yi ci kii njàng bi tàmbale d'autant plus que ñun dañuy wër ci réew mi ñu dem partout mais foo bëri na foo dem ci réew mi doo am réseau doo am benn connexion waaw même à Dakar waaw mais. surtout même à Dakar mais en plus doo am courant. xam nga Dakar léegi lañ nga déplacé wu fen am connexion waaye courant moom dangay ngay chargé sa portable a déplacé pour jël courant mais boo dëkkee fële ci euh, Ranérou lu gërë colli comme ils disent là-bas lu gërë colli <laughs> foofu saa yi di quatre-vingt pour cent des village amoo connexion amoo courant booy wuyu sa téléphone sax da ngay yéeg ci. ci da nga koy garab wala nga teg ko ci kaw terrasse bi sonee nga dégg mais kooku boo nee ne booy ne na xale yi jàng par enseignement à distance da nga ne bu ñu jàng te bu fekkoon ne vraiment xale yi suñu xale lañu état bi yëg na ni ñii suñuy xale lañu c'est une génération boo xam ne déjà bu ñu amee de diplôme pour ñu pour ñu am liggéey problème la mais déjà nañ jàng jàng bu bu jaar yoon bu dëgër boo xam ne am nañu xam-xam au moins bu wóor dinañ doon jéem leneen tëj depuis pratiquement mois de juin juin ñu am bac juillet on est au mois de no novembre novembre donc c'est c'est c'est c'est une génération perdue quoi c'est l'avenir du Sénégal et c'est cette jeunesse-là pour cette raison-là parce que parfois il y a des économiques maanaam nit ki dafa nekk ci ndóol amul mais am na ñoo xam ne gëm nañu réew mi amatuñ fi amatuñ fi espace seen yaakaar tas na